dara Brighton moo daan Manchester City bi nga xam ne moo njëkk jël championnat bi ñaar ñetti bal ci ñaar Chelsea bi ñoom Edouard Mendy ñoo daan daan démb nii di waa Leicester France finale coupe bu France tey 19h15 kon ci diggante Paris Saint-Germain la doon ak équipe bi di Monaco Mambey di fàttali rek ni ci kanam tuuti kon 10h foofu sa Parcelles Assainies ci stade bi nag ci la ñuy amal ab sit-in doxam ñaxtu ngir nag di sàkku rek ñu nag ubbi stade Parcelles Assainies waaw 9 ans après. tout cas tey euh, Mansour am. cri de cœur bi daal mooy Parcelles Assainies. kañ la ubbi kañ la tey 10 heures. ah oui waaw dem leen couvrir ko ngeen déglu seen jàmbar. waaw stade dafa ubbi. dafa ubbi 9 il faut ñu laaj kan moo tardeel yëf yi ba léegi. mooy ci ministère bi la ci promoteur bi la. wala kan la. te mu bañ a doon synthétique. wala ci commune bi la. synthétique kay moom moom am ñu pexe. <laughs> pexe. début de solution. fay jëlee équipe municipale bi daal fay samp air pur. <laughs> bu ñu amee air pur moom <laughs> mouvement kii la mouvement associatif. Hmm. amagul doole. wala bañ am doole. Eh, eh, te moom day campagne air pur. waaw ah, bàyyi suba ñu waxtaan ci maanaam. d'accord suba nañu ci waxtaan ay ja euh, Pape Mante rendez-vous bi kon 12h. waaw kon 12h la doon ak euh, Simon Pierre. 13h incha allah El député du peuple jaajëf. jaajëf jaajëf si eh, rek. grand. kon ba demee incha allah ba demee incha allah ay ca pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yéen kay xëy fësal lay doon ak El Hadj Ahmed Aïdara Sendwave seen application yónnee ak jot xaalis bu jóge bitim réew ñëw fii ci Sénégal te doo fay dara Lalia mbégte kër gi meew mu sell wóor te bëri ferñeent Umu Express site e-commerce bu Umu Group bi leen indil TCL ak Alcatel téléphone yu gën a baax gën a yomba moo leen di may seen revue de laajte day eh, mooy Afrique gi la kañ lay développé jëm kanam moo jar a laaj de termine yéene kaa ne xoolal ma dil bu bees bi la ngir làbbali waat na koom-koom ak Afrique yi ca France la doon amee dama ne lay Emmanuel Macron président France daa toroxal humilier tuuti suufeel kon continent wu lëmb di diwaanu Afrique gi la ndaxte dil bu bees boobee waaw looloo tax nag ba Emmanuel Macron day président France daal di yëkkati ay kaddu ca sommet wu Paris boobee ne ndegama ca bopp kon farata la ngir Afrique waaw waaye itam Afrique tam dañoo war a xulli seeni bët nag ambition yu dugg Macron ne urgence sanitaire la wàllu wér-gu-yaram ngir Afrique ndax Afrique nag bokk na ci continent yi nga xam ne ñoo gën a ñàkk pikiiru la la wax mooy vacciné waaye farata la tamit day aar daar ngir suñu wàllu koom-koom gi lée ak dundinu askan wi lée yéeni kaay dee gi ne te Emmanuel Macron nag ba mu yëkkati kàddu yooyee fekk na lu tolloo fanweer ci ay njiitum réewum Afrique le quotidien yéene kaa ne ndajam Paris moomee ci lu jëm ci wàllum koom gi day ci Afrique waaw Macky Sall ñaari pikiir la fa bëgg laa wax ñaari doos laaste Macky Sall kay wax na punkalu nasaraan yooye eh, ñetti dëggam laa la wax le quotidien yéene ma ma yeggale ma ma yeggale gis ñaari pikiir di doos yooye nga xam ne moom la Macky Sall soxla day laaj ma ba nag mana Macky Sall dana leen bu waaw mooy DTS gi la Afrique fanweeri milliards ak ñett a dindi gàllankoor mën di toggal ay ñaxam ay piqûre vaccin ngir covid bi terminé rek ane gis nga nag boo leen bëggee dëgg waaw France gale ñun africain yi leen mere déedéet parce que ñoo leen gën a riche fop nañ leen ko wax ah, parce que ne gis nga Sénégal gi ak Afrique bu ñuy ay milliards yi milliards ci kérosène waaw ngir dem ca Paris gale tàllali loxo ngir ñaan mais parce que ñoo lànk ne bëgg ñoo développé lan moo ñu manqué dara walaay la Axel Kabou doon wax laa la wax lépp am nañ lépp am nañ ay suuf yu dul jeex ngir mbay ñaata ci jur la ñu yor or beeg jamaa bi nag zircon beeg pétrole beeg gaz bi nag uranium bi nag manganèse ba nag fer ba jant baa ngi ni lée fukki weer ñaar tim ñu ndox maa ngi ni lée tarkal la jën yaa ngi ni lée waaye coton beeg yeneen ak yeneen nag léegi nag dañoo comprendre lan mooy ndayuk France yi nga xam ne ñoo ko gën a riis ci ñin lay profito ngir bokk ci punkaloo adduna bi ñun ñu lànk ne du plan Marshall de dama la dil bu bees la da nga ca jamono jooje réew mi quotidien nee na xoolal suñ dëkku kaw yi ak réewu taax ñàkk ndox mi ci boppam kon indi na jafe-jafe yoo xam ne maara day taali xoolal ma ca ndar ak ca jandeer waaw manifestation yo dëkk la wàllum assainissement gi xaalif wax na leen ñetti dëggam laa la wax parce que Serigne Babacar Sy Mansour waaw nee waxoon naa fi Serigne Mbaye Thiam ne ko mënoo leen a def projet wu assainissement te waxtaanu leen ak AGEROUTE waaye AGEROUTE ak ONAS au lieu ñu waxtaan mais leen ma kër yi la ak jumaa yi defoon wax waxuma la sax boole wuñu leen ca waxtaan waa waaye sax dañoo amul ci wàllum assainissement bi surtout àllaaji maa liggéey leen wax lii waaw évidence yéene kaay ne atutroa bee gox yi ñu war a daggaat ni le Kër Massar Bambilor Géejawaay Pikine waaw Omar Gueye day gars siiñ nañ ko fang de maa la ko wax parce que Bambilor Kër Massar Pikine ñoom ñëpp Omar Gueye lañ jëm baaraamu tuuma ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo am ni le tribune yéene kaay ne en tout cas Amadou Ba Moussa Sy Mbaye Ndiaye waaw dama ne la guerre ba ca Parcelles am seen diggante de critique yéen kaay ne de Amadou Ba kay wane na boppam de candidat la de ci mairie bu Ndakaaru waaw évidence yéen kaay ne ville de Dakar gi lée ginnaaw Barthélemy waaw Amadou Ba nee la ci mairie bu Ndakaaru njaay jël Jóob aha moo ko wax ña seen bi de waaye moom Amadou Ma moomee dana wax ak waa Benno de parce que nag tendance yaa fa Abdoulaye Diouf Sarr ngi Ndakaaru njaay jël Jóob Mame Mbaye mi Ndakaaru njaay jël Jóob réew mi quotidien ne waaye élection locale yi ñu jëm ni lée waaw Khalifa Sall ak Barthélémy Dias day seen diggante yàqu na mar d' itali la ilaha illallah <laughs> ay waay catwaay ay waay catwaay yéene kaay daaw da càmmine gis nga bi mu doon amal ak aayam yi day moom Khalifa Sall waaw mësul joxe ndigal laa la wax ci kii wala nañ jàppale kee moom Khalifa Babacar Sall moomee nee na membre coalition bi ci boppam ñooy tànn ka ñu yaakaar ne dana leen gañaloo laataa ñoo waxtaan ak opposition bi lee waaye Barthélemy Dias day démb waaw dóor na ab yat wala ab fit yi mu sàndi Khalifa Sall ko moom de Khalifa Sall tamit day ma ngay bàyyi xel nag opposition bi ngir ñu xeexle ko ngir mu jotaat ay droit nag la ñu war a régler tey équation réew mi waa kër soow waaw yéene kaa ngi ne bu dee waa kër Idrissa Seck yooyee fekk gi ñu dana tax nag ba ëttu Macky Sall a waaye indi na fi tamit ay jàppal bàyyil ak ay xeex rawatina nag ci biir ndaw yi jeunesse bi waaw bu dee mag na ñoom ca kaw soow ba neex na lool ndaw yi ci suuf day xëccoo bee ngi mel ni tulleeg man lay ah waaw waaw ah mais xoolal ma xeex ba am te diwaanu Touba gale diggante waa réew waa APR ndaw yàlla ndaw yi bëgguñ ku ba benn loxo dong di battre la course parce que président Macky Sall ak waa gouvernement ngam xam nga lan lañ fa war a unique yaakaar na ñoom daal luy xeetoog mbirum dëgg ci mbirum koom-koom ak wàllum politique ñoom rek ñoo xam ñoom rek ñoo mën juum nañu de ku wax ñu dal sa kaw xoola professeur Abdoulaye Bathily ni ñu ko de direct news de professeur Abdoulaye Bathily day waaw nañu ko toroxalee yekk ko lu mel ni xame réew Cheikh Anta Diop ñu demee boppum ko lii ci boppam royukaay a neex doomu buur ba wala buur ba te professeur deful dara lu joxe xalaatam rek ci tolluwaay réew mi yéene kaay Pape Diogoye bi ne li fi professeur Abdoulaye Bathily def li mu dugg ci kaso ndax réew rek li mu daj amul kenn ci ñoom koo xam ne dund ni mel gis nga gi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr ak gi def nañ ko ci professeur Abdoulaye Bathily day waaye waroon nañ koo def ci Barthélemy Dias ak Ousmane Sonko yow ci jamono joo xam ne Barthélemy Dias